di leen xamal ni billaahi lu ma xam ni lii du yàlla du bi lu ci dul moom te arrêté wu ma ko loola xaw ma ko gisuma lu gisuma li lu ay wax nag bu baree borom juum waaye wax dëgg yàlla su ma sañoon ñëpp dañuy bokk leen waaye man jàmm ak la ba kenn ku ne li ma ko yéene yàlla ma ko yàlla jox ma xol man loolu nekk ci loolu te ken kenn ragaluma kenn ba ma di ko jay te jay wax ju amul la te wax ju amul mën naa yóbbu nit ba bu ëllëgee day yem yi loxoom ndegam dina ko tal dañ koy ñoñ yóbbu ko sawar yal na nu mucc ca loola lépp lu fi juum it yal na nu ko yàlla jéggal bàyyi jóob jërëjëf man de kontaan naa yal na yàlla kontaan barke alxuraan kon noo ngi joxe ñaan yi bu fekkee juum naa ba tey ngeen dese keneen ngeen wax ma ko waaye guddi na te ñii ñëpp dañuy dëkku yi ci dëkk bi ndeysaan man ma sañoon bu egg rek dag may woo ni ma accident ci jàmm ak salaam ba ma xam ne yàlla defal na nu jàmm hmm. ab am nen sax toju fi lu may jàmm ak kon juboo nañ ci ma ñaan nu dem fatiha falaqay naasi ak julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam te lépp looy def loo sonn sonn yàlla faalewu ko ahmaalu xamal ni bi bëgg lu baax jëf ju mën a doon doon mën loo mën a bëgg a def loo def nit ñi yaay na yéen a jiitu ñëpp bu ko defee loo fa ñëw sax yàlla baal la ko ci yërmandeem kon faatiha yi ak fàllaki ak naasi lu baax doo luñ ci jublu yal na yàlla defaloon lu réew mi ak réew mi yëpp ci barke alquranul karim yàlla bu fi ja yàlla bu fi musiba jàmm ak salaam rek kon nag innamal ahmaalu binniyaati wa innama li kulli imri'in maa nawaa faatiha ak fàllaki ak naasi ku ko mënul nag ngay wax amin amin mii dafa foor lool moom asalaamualeykum mën naa ci faral wala mu buggee ci waaye eh, nit ñi dañoo am tax ci su xaw a soxla wala seen bopp te faral nañu jeex waaye lu ci rëcc rek yàlla te manqué yàlla na ko yàlla defaral bu ko defee ku mënul la ngay wax amin amin moomu dafa baax a baax juróomi araf la defe na arafu arafu ci nekk turu turu yonent lay junj la nga cay jublu nag di ko xamil amil rek loo xamil rek te xamoo lu mu ku ci jógee te xamoo lu mu mbaa nga xam te loo mën a jëriñoo bu ko réer laaj sa morom yëpp yëpp tur yooyu yëpp Idrissa Ibrahima Younus e, Muhammad yonent yàlla nooyi boo nee amiin nag yàlla kenn ko wax ne defal ma damaa xam ne kii sax boo leen woole wooyee fi mu ne sekk sekk ki yem nga yem ca ki ngay jëkk a jot yem ci moom ah boo ko waxee waxee ministère ak ñu fi ko jox ma ko kenn du wax loolu li ñuy waxati xaw ma si lu pale mooy te boo ko moom waxee ni teggeloo daal sëñ baa ngi fi waaw jox ma ko ko mu ci teggee na mu lay wax yi wala fekk waxal yi moom lay daal ni ne ko waaw yal na yàlla jubale boppam ak rawaanam yi ak ñu baaxam ba ñuy wax wax yi ñuy wax buñ juumee xam ne moom lañ ci xol yi ba dana yërëm nangol la yëpp nga nga ni yàlla boo nga ni amiin fekk na yàgg naa yàlla yàlla yàlla na nga nangul ci barke amiin amiin moom ci barke yonant yooyu lañ ciy jublu am na waaye laa sori ñu ngi ba beneen ne jàmm yàlla nañ ko fekkee waat a nu gën a sawar ci amin faate ak falaq ak naas yi ñaan yàlla jàmm ak salaam nu fekk waat ko fi ay yooni yoon ngeen bi nag ñëpp a ma saf waaye saf na ma yow itam ngeen ñëw toujours dal waaw waaw bu ko defee ma ñaanal leen bu ngeen gën a taamu rek rek aas digal daal ma digal na ma waxal nantuma nantam ko ba sori na ko mais ndax loolu jar naa wax wala déet nee nañ boo ko doon jàng fi mu ne sax ci ku gëm laaw de ku gëm rek ku gëm boo ko dee jàng ñaan boobu nii loo fi taal lu tàkk ko weer di nga yor sa almet seet bu ñu koy jàng moo koy jàng nga xoset sa almet ba xam dina tàkkam déet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 بسم الله الرحمن الرحيم كفاك ربك كم يكفيك واكفة كفاكها من كميم كان من ملك كفاك ربك كفيك في في كرف من كوكب كان يحكي كوكب الفلك تكبر كرا ككر الكار في كبل تحكم ساككة كأكلكيل كلكي réew mi yàlla bu fi bantaa ak réew yi jullit yëpp yàlla bu mu fa am sëriñ bi ginnaaw loolu mu ngi yëkkati kàddu yoo xamante ni nii mu ngi ko jëmee ci boppam ak mboolem taalibe yi sëriñ bi di soññi boppam ci nu dolli koo am pas-pas suñu diggal suñu boroom dolle yeesal suñu jaamu yàlla te topp ci ginnaaw yonent bi roy ko ni mu ko doon jaamoo ndax suñu borom kat bi mu nuy bind dara taxul mu bind nu lu dul lu jaamu ginnaaw bi nga xamante ni nii Euh, monsieur le ministre mboolem li nga xam ni président de la république wàcce woon na ko ci ministre de l' intérieur ñu wàcce ko ci mboolem chef de service yi Serigne Ba lay seedeel ni euh, cent pour cent yombul ndax suñu borom mi ko man defalu ko kenn waaye jige nañu ko kon ñu ngi leen di ñaanal ñoom chef de service yooyu ci turu président de la république ak ñi nga xamante ni ñoo leen doon coordonné sëriñ bi di soññi boppam ci jaamu yàlla di ci soññi mboolem taalibe yi ndax sunu borom moo wax ci alquran ni wa ma xalaqtul wal ins illa li yaabuduuni binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma loolu doy na sëkk ak kot bu fekkonte ni kot la boo xam ne sunu borom da koo indi ngir ñu topp ci kon lépp lu ñuy def jaamu yàlla googu moo ci war a topp waaye jaamu yàlla itam bu sellul melul na mu war a mel sunu borom du ko reconnaître du ko nangu ndax wa ma umiru ila li yaabudu allaha muxlisina lahu diin kon jaamu yàlla boobu day ànd ak sell te suñ borom soppoo nangu waaye sayduna muhammad gën koo dëggal sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha du wax mukk ci bànneexu bakkanam lu mu wax suñ borom moo ko digal moo ko sant moo ñu wax ni inna allaha taala la yaqbalu min amalihi illa ma kaana lahu xaalisatan wabtuxiya bihi wajhahu moo wax tamit ni annaasu kulluhum halka ila alaalimuun waalaalimuuna kulluhum halka ila alfaailuun walfaa'iluuna kulluhum halka ila almuxlisuun moo wax ni doomu aadama benn du jëf jenn jëf yàlla nangu ko lu dul ni da koo sellal te ba mu koy jëf suñ borom jëmmam ji rekk tax waaye moo wax sax ni doomu aadama yépp perte nañ ba mu des ñi xam ñi xam ñépp perte nañ ba mu des ñiy jëfe li ñu xam ñiy jëfee lu ñu xam ñëpp perte nañ ba des ñi nga xamante ni dañ koy sellal kon sëriñ baa ngi leen di soññ ci loolu di ñaan ñu gën cee góorgóorlu sëriñ bi tam di wax ni nañu wattandiku fitna ndax lépp lu nit tal di ko def dafa fekk mu am jàmm te bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni al fitnatu naimat laana allahu man ayqasaha fitna kat nekk na loo xam ne dafa tëdd di nelaw sunu borom rëbb na képp koo xamante ni yaa ngi koy yee kon sëriñ baa ngi soññee fépp fu nit fekk lu fitna nar a mu tegaat ko ndànk ci suuf donte sax dañ cee jël àqam sëriñ bi itam euh, alquran di wax ni wattaqu fitna la tusibanna alladina salamu minkum xaasa wa anna allaha sadidul xiqaab nee na na ngeen wattandiku fitna ndax fitna kat du yem ci bopp boroom waxtu woo yeeyee fitna yaa ki seetaan nga koy yee fitna ja yéen ñëpp la fitna ja di boole daal ci seen kaw bokk na ci li koy yeey mooy ñett yi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni kullul mumini xaraamun ala al dammuhu wa maaluhu wa irdu bépp jullit xaraam na ci sa mbokku jullit ñett muy deretam muy alalam ak ab deram ñëpp de gis ràññee nañ ci média bi ak réseaux sociaux yi ak net bi ay kàddu yoo xamante nii dafay jóg ci ay ndaw jëm ci ay kilifa yi diina yoo xam ni boroomi yaakaar lañu te loolu mën naa yëkkati fitna sëriñ bi di ci moytandikuloo ndaw yi di ko moytandikuloo mag ñi ndax mën naa yee fitna sëriñ bi itam di soññee ci ñu wut jàmm ci suñuy diggante ndax xam ni bilaadul arab gi nga xamante ni islam fa la wàccoon kenn ku ne gis na ni ah, noonu islam yi dugg nañ fa féewale leen ba lu ci bari tasaare leen ci këru ci ci ak bennoo leen waaye ñu bàyyi xel ñun suñu réew mi ci li nga xam ni mën naa yëkkati fitna li mën a yëkkati fitna ci suñu réew yi nag mooy suñu kilifa diine yi li ñu fi bàyyee woon mooy ak bennoo takub jàmmoom ñu bàyyi xel moom sëriñ bi di wax ni mu ngi soññi boppam di soññi kilifa yi diine yi mel ni moom ni am na ñoo xam ne dugg nañ ci sunu biir takk seen ndigg yore wërsëg di wone ni ay taalibe lañ di yëkkati ay kàddu ci këru diine di koy sànni ci yeneen këri diine yeneen këri diine yooyu seeni taalibe di wane pas-pas ak ngëm ñoom itam di tontonte ak ñooñu ba weer yi ñu weesu am na lu ngeen ci yëg gis ko ci itam ñu di ko dund te gis nañ ni li wër Sénégal fépp mu ngi tàkk waaye gis nañ Sénégal ni réew mi toll tàkk euh, li mu dund ci ay at te ni tàkk ci réew yooyu mosu fee tàkk loolu nag xañ leen jàmm ñëw doo doo noonu islaam yi ñu ni nuñ mën a def dinañ taar réew mi fiñ ko gën a mën a jaar nag bëgg ko faa jaar mooy këru diine yi ndax jéem nañ ko fu ne te tàkkul sëriñ bi nag conseil bi mu ciy joxe ngir loolu bañ a am mooy mu ngi koy commencé bopp ci boppam di wax ni bépp njabootu Thiénaba bokk ci njabootu maam Amary Lar wala nga di taalibe wala mu ngay muxaddam boo déggee genn kàddu boo xam ne jëmale nañ ko ci Thiénaba sax tontu loowu la wax loowu la na nga dellu si ci kilifa yi bu ci yëkkati kàddu jotee dinañ ko ci yëkkati ci anam ba nga xamante ni du jur fi suñ diggante kenn mu ngi wax tam ni yeneen këru diina yi mboolem njaboot boo xam ne yëkkati nga kàddu nga bokk ca famille ba wala nga ñàkk caa bokk jëmale ko ci askanu diine li mu bëgg ñu faje ko ko di ci joxe conseil mooy xalifa booba na ànd ak état bi nu jël ndaw loola teg ko ci yoon faj ko ba bu benee ne du ko def waaye ku ko naroon a def itam dina ko teg ci suuf waaye suñ ko bàyyee kenn ku nekk yor sa wërsëg yor sa téléphone nekk ci sa borom lu la neex yëkkati teg ko ci sa derub morom rawatina këru diine yi nga xam ne mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg nga yaakaar kër ga ko jëme ñoom it yëkkati ko ca lu gaaw la ci taar réew mi monsieur le ministre Serigne Ba nga koy yóbbante ci président de la république di ko yóbbante ci mboolem xalifa sénéraux yi ci réew mi ñu artu njaboot ci canaba set tarixa bi ñuy dund mooy tarixa Cheikh Ahmad Tidiane Serif radiallahu taala an Cheikh Ahmad Tidiane moo jox tarixa bi Seydi Mouhamad Xaaxas a Tidiane yi mu jox ko Sidi Mawlud Fall mu jox ko Sidi Abdou Karim Diallo mu jox ko maam Limaamul Mahdi Ba mu jox ko maam Seexu Amadou Ba doomam mu jox ko maam Amari Ndaak radiyallahu taala anhu ñu koy donnante ba ci jotaay Baay Cheikh Tidiane bii tarixa boobu nag di sariya ba jeex tak ndax Cheikh na Tidiane bi ko sos bi muy tàggatoo ak ñun dafa wax ni wa kullu ma samixtumuhu minni fasinuhu bi misaani sarax fa in waafaqa fa xutu wa in xaalafa fatruku tarixa bii ma leen bàyyee lépp lu ngeen ci gis baa ngeen dégg ni maa ko ci wax baa ma bind ko ci na ngeen ko mandaxe ak balance sariya bu ñu dëppoo maa ko wax jël leen jëfandikoo suñu dëppoowul lu wax ji rëy rëy lu mu rafet rafet sànni leen bu waxuma ko kooku wàccoo naa ak boroomam wàccoo naa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye wàccoo naa képp koo xamante ni tënku nga ci tariixam te bëgg a dox ci yonent bi sallallahu alayhi moo ko jox li mu yor Sidi Ali Harazim radiyallahu taala anhu ci muqaddam yi jiitu ci Seydina Seex moo nu nit li ni fukki fan ak ñaar ci ngoonu tam ci bisu tam xarit ci weeru tam xarit Seydina Seex moo ko ni pëkk pëkk mu jóg mu ni ko Harazim ndax yaa ngeen jàpp mu ni ko waaw mu ni ko gëmmal sa bët te topp ci sama ginnaaw Sidi Ali Harazim nee na damaa gëmm sama bët topp ci ginnaawam ñetti jéego laa dox mu ni ma xippil bi ma xippee maa ngi yem ci jabal nee na ma xool sama bët ba mbooloo mépp fu ma fu ma gest gis fa mbooloo ba fu sama bët yem nee na Seydina Cheikh di xuus ma di ca topp Seydina Cheikh di xuus ma di ca topp ba ca digg géew ba ñu fekk fa kilifa gu toog ci gàmmunaay ñaar nekk ci ndeyjooram ñaar nekk ci càmmoñam ñeent toog beru kenn tiim ko yor drapeau bi nga xam ne ci lañ bind ismulaayil azam am ko beru Seydi Ali Harazim nee na man comme ndaw ma dem ci ki beru ni ko man anta yow la kan mu ni ko ana xadiru Moussa man mii maay xadir bi daan ànd ak Moussa mu ni ko man haulaay ñii toog ñaay mu ni ko ki toog ci digg bi toog ci gàngu naay mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ak Seydina Omar ñaar ñi ci jàmm ñoom mooy Seydina Ousmane ak Seydina Ali ki ko tiim yor drapeau bi ñu bind ismulaay ansam nag mooy malaaka bi suñu borom dénk mu mbootum ismulaay ansam ñeent ñi teru toog mooy ulul azmi mooy Nuux Ibrahim Moussa Isa mu ni ko maa sababu hada jàmbul mubaarak mbooloo mu teew mii ci wala jotaay bu barkeel bii lan moo ko waral bu tedd bi mu ni ko sayxu ka hada Seydina Cheikh mi nga àndal moo waral jotaay nee na ci la yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jóg ni yaa nuuxun yaa sayxul anbiya inni jaaltu ahmada tijaani haada xalifatan lii bis ni ki tey def naa seexna tijaani muy sama xalifa ci kaw suuf mu jóg ne xabiltu waradit mu ne yaa ibrahim inni jaaltu ahmada tijaani haada xalifatan lii mu ne xabiltu waraditu mu ne yaa isa inni jaaltu ahmada tijaani haada xalifatan lii mu ni xabiltu wa raditu mu ni yaa Muusa inni jaaltu Ahmada Tijaani haza xalifatan lii mu ni ko xabiltu wa raditu Seydi Ali Xaraasim nee na kaal ak leer moo jóge ci kaw asamaan wàcc ci bopp Seydina Cheikh di wëndeelu ba daj mooy Sadio Arif yi dañ koy woowe nee na li may dund ak Seydina Cheikh sama bët musta teggi ko ci kaalu gi gi Seydina Cheikh kaala woo nee mbir ni xay ni cëpp ni ayyuhal jamhul mubarak rabbukum yaqrukum salaam dëggal li yonent bi wax ni yonent bi lu mu wax yàlla ko wax loo te fu mu nekk Seydina Jibril dina ko fa fekk mu ni ko kii kan la mu ni ko Seydina Jibril mu ni inna la si seen borom nee na inna la si na yu bàyyeewoonaka innamaa yu bàyyeewoon allaha yadullaha fawqa aydihim mboot mi sëy jënt yàlla Muhammad jox Seydina Cheikh sunu borom yebal Seydina Jibril mu dëggal ko ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu nag raam moom ñëw ci maamam ca war ma ja ak ak jox ga si yent yàlla ni ko yaa Ahmad Tijaani ifal fa fi'luka fi'li wa amruka amri wa iznuka izni Seydina Seex yow jëfal sa jëf mooy sama jëf sa mbir mooy sama mbir sa ndigal mooy sama ndigal noonu nag mboolem arwaax ak anbiyaaw ak mursal junne yi ñëpp wàcc ci kanamu Seydina Seex di ko wax xabil naa waradina xabil naa waradina yaa Cheikh Ahmad Tidiane moo tax Seydina Cheikh wax ni maqaamul maktuum an kulli wara siwa nabi ma waraahu wara maqaama mi ma yonent yàlla Muhammad jox ku dul moom ëmb na ko ci la waxee ni innal buyuuta allati tafiidu min saati sayyidil wujuud tatalaqaaha min sawaatil anbiyaa wa kullu ma faaza wa barasa min sawaatil anbiyaa tatalaqaaha saati wa minni tatafarraqu min jamiil xalaaya lépp lu jógee ci suñu borom ci yëpp yàlla muhammad dina wàcc ci yonente yi ci ci yàlla ci yonente lay wàcc bu jógee ci sayyidina muhammad mi yilif ñëpp te ku yàlla bind moo ca dina wàcc ci yonente yi su jógee ci yonente yi nag ci sama loxo lay tege ku ci mos maana ku seen sayyidina seex moomu nag moo jox sidi muhammadul xaafas ak tijaani mu jox ko sidi mawlud faal mu jox ko Sidi Abdou Karim Diallo mi nga xam ne moo dugal tariixa bi ci fii ci Sénégal waaye yàllaa ngi dogal bi muy dugal tariixa bi ci Sénégal mu ngi ko dugalee kër Seydina Limaamul Mahdi ba ngoonu àllarba la wàcc ci gaalu Looco Seydina Limaamul Mahdi yu Seydina maam Seexu Omar gane si ko dëkkoon xalwaar mu ni ko sama gan gi ak suñu gan gi ak si na ñu bokk jëlal koy bagaasam ñëw toog laaj ko sëriñ bi mu bëgg leen a jox ñu ni ko loolu taxuloo jóg mu xam ni leer gi ci moom lañ koy laaj mu jox Seydina Limaal Mahdi salaatul faatiha jox ko maam Cheikh Omar kon tariixa bi bu duggee Sénégal ci kër maam Limaal Mahdi la wàcc ba mu ca jógee kër Seexu Canaba la dugg génnaat ci bën a gën ñu di ko doonante di ko doonante ba mu wàcc ci loxol maam Seexu Amadou ginnaaw bi nga xamante ni Seydi Abdou Karim Diallo yebalaat na leen ci sëriñam Seydi Mawlud Fall ñu dem ba mu def leen listixaar ni maam Limaamu Mahdi yow maay sa sëriñ seexu seexu Omar Fuuti Muhammadul Xaali ca Madinatul Munawwar yow mooy sa sëriñ ñu ngi ñaan yàlla yàlla nangu ñaan yooyu yëpp sëriñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp li mu bindoon ci discours bi ëpp na lii waaye kenn ku ne xam ne ni gudd na te jotaay bi yàgg na waaye dañuy tënk kàddu yi fii di sant mboolem presse bi di RTS di Walfadjri di Sen TV di ñi di nekk ñëpp bu ñu leen tuddee sax duñu matal sëriñ bi sant na ñëpp gërëm na ñëpp mu ngi ziyaara ñëpp di ñaan yàlla yàlla nañ ko téewaat déwén li nga xam ne livre la buñ fi bindoon na taalibe yëpp xam ni la ca dooni erreur ci maam ba mu rectifié ko moom ñoom ko àndaloon jëlaat engagement ci bind beneen téere boo xam ne maam Amari Ndaak fekk la la koy jagleel xamoon nañu diis na ci seen i moo tax ñu jaaree la ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa maa zaalika bi aziiz wa salaamu aleykum wa wa barakaatu